envoyé nu tir ay vingt cinq points vingt cinq points dama ne les seuls points yi nga xam ne c'était les points fondamentaux les gens n'en ont pas du tout parlé on est passé à côté de l'essentiel ça c'était une parenthèse pour del soit léegi ci président bi président bi il a toujours un discours guerrier son chant je ne sais pas le wàccacala c'est un discours guerrier méfiez-vous je ne sais pas de de de du lion qui dort discours guerrier Abdoulaye Wade na bi ñuy def assises nationales yi daf wax ne moom amul opposition c'est des gens frileux mais gis nga ni ko 23 juin bettee parce que jàppoon na ne nit ñi egsi wuñu woon foofu te le problème c'est pas l'opposition le problème c'est le peuple sénégalais. moo tax ma ne le président Macky il doit être très prudent dans ses discours. c'est-à-dire mënoo di wax nit ñi chaque fois ñëw leen à la paix alors que yow sa wax chaque fois buñ ko buñ ko buñ buñ ko analyser c'est-à-dire il y a des germes de violence qui sont semés là-dedans te là aussi cher yéen ñi nga xam ne yéen ay yore CUDIS je crois que bu ba. ay conséquence am ngeen door wax bu fekkente ne dafa am benn charte bu ngeen di tëral man ci li ma leen di digal moo di ku def déclaration yu mel nii keroog bi ko chef de l'État defee le lendemain man jàppoon naa ne da ngeen waroon a génne yéen seen benn communiqué ne wax ji ñaawlu nañ ko su ko Ousmane Sonko xëyee def Khalifa Sall def ko Barthélémy Dias def ko ngeen ne ñaawlu nañ wax ji mais bu ngeen bàyyi ba confrontation am ngeen door a commencé daan ne yow yaa yow yaa tooñ yow tooñuloo yow tooñuloo def jugement de Salomon loolu su boobaa aussi ça ne fait que la violence mais du ko kii. yéen da ngeen a am charte boo xam moom ngeen tëral charte bi man mën naa wax ne charte bi sax c'est un plus rek mais toutes les lois de ce pays bu ñu ko respecté charte sax du am waaw charte sax du am mais comme que c'est une initiative non waaw moom laa la wax moo tax noonu moom laa moo tax ma ne comme que c'est une bonne initiative yeneen solution moo tax ma ne mais c'est une bonne initiative certes qu'on salue mais euh, euh, ku respecté wul loi yu ñu tëral est-ce que respecté charte ah, dina dina yomb loolu laa moo tax ma ne moo tax laa ma ne loi yi ñu tënk constitution bi ñu tënk code yi ñu tënk mm-hmm. ku ko respecté wul nan ngay mën a respecter beneen charte de la non violence boo xamante ni ay bonn volonté rek ñoom ñoom ñoo ko teg d'accord xanaa peut dañ ciy rus ne ay sëriñ ngi ci parce que comme que chaque fois bu ñu waxee ci dëkk bi ne sëriñ uh-huh. ñoom comme que jox na leen cër boobu. je crois que en ce moment aussi yéen li nga ci li ma jàpp de moo di ku fi yëkkati fitna. Uh-huh. da ngeen taxaw ngeen waxu ko. te nag ñi yëkkati fitna aussi gis nañ ko parce que foofu laay daanalee. li xew keroog ci doxantu Barthélemy Diaz bi. c'est inadmissible. loolu kenn mënu ko nangu. d'accord cest diir dire mënuñu nangu loolu c'est-à-dire xam nga man mënuñu ko nangu. Un Ablaye Diouf Sarr ne peut pas se pavaner dans les rues de Dakar comme il veut. Amadou Ba ne peut pas se pavaner dans les rues de Dakar comme il veut. Les gens de Benno Bokk Yaakaar se pavanent dans Dakar comme ils veulent. Alors que quand un membre de l'opposition commence à faire aussi sa promenade, un commissaire sort pour le lui interdire. Le commissaire est sous les ordres du ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire ministre de l'Intérieur qui doit laisser les gens quand loo xam moom la wax te moom constitution bi moo le ministre de l'intérieur ne peut pas ne torpiller la constitution comme ça na bàyyi nit ñi ñu def seeni marche dans le respect bien sûr des lois de la république mais li nga xam ne moo fi am keroog dañuy yeewaat encore fitna et je dis que encore une fois de plus. le Sénégal Alors, est au-dessus de tout cela. oui voilà. professeur rapidement laata ñuy dem si euh, laata ñuy par rapport justement aux, aux déclarations euh, euh, sa sa analyse ak lan la mën a yee ëllëg cette ce genre de discours. xam nga. Hmm, waxi Macky Sall bi eh, daf may fàttali keroog eh, ba Socrate taxawee devant le tribunal des Grecs ce grand père de la philosophie mais la pari élève rek ne nañ lire l'apologie de Socrate et au des élèves na ko ñu bëri lire parce que am na enseignement monsieur le professeur respect Socrate bi mu demee ñu ne ko pourquoi doo jël ay avocat pourquoi tu te défends pas mu ne leen mais je me suis toujours défendu ñu ne ko mais comment mu ne en ne pas faire l'injustice à ne pas faire l'injustice xam nga le président de la république mooy li ñëpp wax rek problème bi mu am munu ko bañ a am parce que cumul bu muy def la ñëpp wax nañ ko nekk le président de la république de tous les sénégalais ba pare olbeteku nekk le président de l'APR dans un pays où le parti état est une réalité depuis 60 ans on n'a jamais su faire la différence entre Diouf et le parti socialiste Ablaye Wade PDS dañ doon réunion biir palais de la République Abdou Diouf da doon jël le voitures du de l'État di ko campagne Ablaye wadd di ko dénoncer bi mu ñëwee il le pire dans ce pays ma waxati ko ngeen jël ci seen bigg yi commencé saagaati mais vous ne nous empêcherez jamais d'évoquer l'histoire loolu moom bu leen ci sax sonn xam nga Macky Sall la waroon tiitaroo maa ngi def liñ ma li ma waatoon ci constitution bi maa ngi koy accomplir kon kenn mënul ci man dara parce que loolu bu ko defee ñi nga xam ne nii ñooy kiiraayam mooy le peuple sénégalais mais nguur googu mu yore au-delà de toute forme de théologie nga xam ne yàlla moo ko jox mais nguur gi ñun ñoo ko ko jox te bu waxee ne mënumaa intimider mais Serigne saali wax na ko léegi Combien de président qui ont été plus grands que le président Macky Sall ou autant que grands que Macky Sall ont été intimidés et plus que de l'intimidation sachez du pouvoir ñaata lañ euh, Ablaye Mba waroon na fee nekk ba dresser nu liste bi le dernier mooy Yaya jàmmee gis nga tolloon na foo xam ne buy wax ak peuple gambien yi dafay mel ni ay jaamam lay waxal bañ ko fay génne dafa yomb te le président Macky Sall war na xam lenn bu fekkee dafa am derrière lui ay ñoo xam ne nii dañ koy jëy di ko gëmloo yenn yi ñooñu la ab lay wàdd waxoon gaaya je n'aime pas les laudateurs d'ailleurs cela ne m'aime loolu la wax les cadres du PDS ma fàttali leen ko moom Ablaye Wade je n'aime pas les laudateurs d'ailleurs cela ne Macky Sall nag gëm naa ni loolu war na ko mun a émouvoir parce que man jàpp naa ne Ablaye Wade association intellectuelle bi mu amoon de temps en temps ba mun a tiim Sénégalais yi gis ni mooy seen papa mooy seen président man gis naa ne Macky bi amu ko parce que Macky Sall il est foncièrement partisan dans tout ce qu'il fait kii wax nañ ko léegi lan mooy ndey tambaambaalu Diouf saa tambaambaalu ci mbeddum Dakar yi jàmm fekk ko ci li mu Dias dox na xanaa réew mi moomatuñ ko. xanaa c'est pas le territoire sénégalais. xanaa c'est pas la république la chose de tout le monde. gis nga qu'il soit le président de la république amul kenn koo xam ne nii garanti ay garanti mystique ay garanti de force mun na laa sauver xam nga ni lu lay mën a sauver mooy da ngaa nekk ci dara nga nekk ci njub ma terminer rek. Mhm. fàttali ko li nga wax ni moom la sëñ Abdou Aziz waxoon dirigeant du parti socialiste gis nga li yëpp ñàkk générosité la rek ñàkk yërëm askan wi la parce que askanu Sénégal fi ñu toll nii. Mhm. ñun tey boo demee ak seen BRT bi ma waxati ko. Mhm. may massawu les populations de sa de Fadja ñu ngi ci salte bi ñu ngi ci lëndëm gi ñu ngi ci danger bi ñu ngi ci insécurité bi soo waxee ñu ne ma da ngay defar d'accord nous ne sommes pas contre le progrès nous on est des progressistes par essence mais dama ne la sooy defar. da ngay def ay déviation def ay voie de contournement mais ñëw jàpp ñëpp tëj leen tuwo yu toj instant bii nii Bougane Gueye Dany waroon na yónnee ay nit kaas ba ba faja tu as l'impression que nous sommes dans des camps de concentration dans notre propre pays mhm. tout le monde est en danger loolu il s'en fout même pas loolu waxuñu ko li ko fi mën a sauver ba duñ ko intimider mooy li Senghor waxoon xam nga Senghor bam ne nguur kenn du ko kenn du ma xoqatal xam nga Senghor ko fi njëkk a wax mais daf ci teg ne nguur kenn du ko ñidd hmm. ba mu jotee mu def ko mu rafet mais moom su bëggee nguur ñidd ñi ñidd nguur gi hmm. wala mu bëgg ko salfaañee peuple sénégalais dinañ ko intimider et au delà de intimider dinañ ko génn suñu réew mu nekk moom mu nekk keneen parce que pouvoir bi ñun ñoo ko moom et que sénégalais yi nañu xam lenn gis nga lii talaa di fàttali fii toujours ñaari ñay bu ñuy xeex ñax mi rek moo ciy sonn kon nag ñax mi dafa war a am fulla ak fayda goo xam ne tey mu am ay dëggu boppam ba bu ñax yi ñëwee ñax yi ñëwee ñu jam leen gis nga fii problème bu fi amoon tey le président de la république ceex lañ koy def mu dem France dara du ko ci fekk gis nga ñiy wër ko tey nga xam ne nii ñoom ñooy ay dunguróom ak ñeneen ñoom ak ñun ñoo nekk dans ce pays là. bu dee di am yàlla tere ñoom la bu deret di tuuru ñun ak ñoom la moom ak sa famille dañ leen di rawale comme ça se passe partout kon nañu xam ne Macky Sall bu mu ñu gënal Sénégal Ousmane Sonko bu mu ñu gënal Sénégal Barthélémy bu mu ñu gënal